Euh, ñi ngi nuyu ñi fi teew ñëpp seen tur ak seen sant di ziar euh, sëñ bi ak sang yi fi nekk yëpp di ziar mbokku taalibe yi euh, dama xam na dina xaw a metti ci ñenn ñi parce que comme dañu am ay gan yoo xam ni dañuy jógee Côte d'Ivoire ak yeneen dëkk dafa doon baax ñu wax ci tuuti ci français ndax ñoom ñu mën a xam li ñuy wax lu mu doon waaw moo tax waxtaan bi may waxtaan ci Maam Jaara dama koy waxtaan ci français bu ko defee ñoom ñi comme ay gan lañu ñun xamante nañu ñoom ñu xam li ñuy wax lu mu doon euh, je voudrais commencer par saluer les délégations qui sont venues de l'extérieur les honorables invités et notamment ces distingués invités qui sont venus de Côte d'Ivoire euh, vous êtes venus chez vous le Sénégal est un pays frère de la Côte d'Ivoire nous avons beaucoup de Sénégalais en Côte d'Ivoire il y a beaucoup d'Ivoiriens au Sénégal c'est le même pays c'est le même peuple et ça depuis longtemps depuis houphouët et Léopold Sédar Senghor, ces deux présidents qui étaient très proches l'un et ça montre évidemment que ces deux pays-là sont des pays amis, sont des pays frères. Alors, il est de faire un résumé sur Sokhna Diarra Bousso. Euh, vous êtes venu pour une après-midi qui célèbre cette sainte, euh, cette sainte personne que constitue Sokhna Diarra Bousso. personne a vu le jour en 1833 Et euh, cette personne a fini son travail, comme on dit. Euh, elle a terminé sa mission sur Terre en 1866. Donc Sokhna Diarra Bousso a vécu simplement pendant 33 ans. Mais pendant 33 ans, elle a eu précisément à mener une vie pleine. Le français le plus important, ce n'est le nombre d'années dans la vie, mais c'est la vie dans les années. Alors, elle a passé évidemment des années exemplaires articulée autour de l'éducation. Je crois que c'est important. Euh, elle a eu euh, comme père euh, Serigne Mohamed Bousso et comme maman Sokhna Astewalo. Et là-bas au Fouta, c'est-à-dire précisément la porte d'entrée de l'islam en Afrique de l'Ouest et notamment au Sénégal, dans un contexte marqué par le bouillonnement de l'érudition autour de la science islamique, Sokhna Diarra Bousso est installée dans ce contexte-là. Ce qu'il faut retenir, c'est que premièrement, Sokhna Diarra Bousso est une sainte personne pétrie des sciences islamiques. Donc, à 14 ans, elle maîtrisait le Coran. Elle récitait le Coran à partir de l'âge de 14 ans. Donc, retenez essentiellement que du point de vue de la religion musulmane, elle a constitué un modèle, elle a constitué une référence. Par sa croyance, par sa piété. Par sa par sa piété. Elle était pieuse, elle a respecté comme elle a pu les règles canoniques qui organisent le fonctionnement de la religion islamique. Première chose à retenir donc, c'est que Sokhna Diarra Bousso et une croyante musulmane qui connaît bien la science islamique, qui connaît la tradition prophétique et qui a été formée dans une bonne famille, la famille de Mohamed Bousso et la famille de Sokhna Astoual. Premièrement. Deuxièmement, c'est que du point de vue de la conduite, Du point it vue de la conduite, Sorna Diaro les années 1989, nous sommes dans un monde qui est entré des idéologies. Le, le libéralisme qui a déterminé le fonctionnement du monde pendant longtemps a montré ses limites. Le socialisme qui a été euh, en les satellites de l'Union soviétique, ce communisme-là a connu des problèmes à partir Et le monde a été plus ou moins désorienté. Il s'agissait à partir de ce moment-là de se dire quelle est la voie que l'on doit suivre pour sauver le monde de la désorientation. Parce que nous sommes dans un monde, dans une crise. Pas seulement une crise économique. La crise économique est peut-être la crise la plus simple. Mais la crise la plus compliquée, c'est la crise morale, c'est la crise des valeurs. Et nous sommes dans un monde qui traverse une profonde crise des valeurs. Que faire pour nous sauver de cette crise des de référence. Le premier, le, le premier auteur, il s'appelle Maurice Bucaille. Je le dirai après en Wolof. Maurice Bucaille a écrit l'islam, la Bible et la science. Maurice Bucaille, qui est un cardiologue français, a dit que moi, quand j'opère des cœurs qui sont des cœurs de non-musulmans, c'est des cœurs qui sont agités. Par contre, quand j'opère un cœur de musulman, c'est un cœur qui est plus ou moins équilibré. Et Maurice Bucaille est devenu un musulman par la suite. Neil Armstrong a marché sur la Lune. Et sur la Lune, il a entendu parler de l'appel à la prière. Lorsqu'il est rentré, il est allé en Égypte et il a entendu l'appel à la prière et euh, Neil Armstrong s'est converti à la religion musulmane. Donc on a dit finalement que le chemin qui peut sauver le monde de la crise dans, lequel, dans laquelle il est, c'est le chemin de l'islam. C'est le chemin de Et dans ce chemin de l'islam, nous avons une référence qui s'appelle Cheikh Amadou Bamba. Cheikh Amadou Bamba est une référence pas seulement parce que les Sénégalais l'ont dit ou que les Africains l'ont dit, mais parce que les Occidentaux eux-mêmes, dans un contexte de crise, quelqu'un qui s'appelle Philippe Couti dit « Le seul chemin qui nous permet de sauver le monde de cette situation de crise et de désorientation, c'est d'aller connaître l'œuvre de Cheikh Amadou Bamba. » L'œuvre de Cheikh Amadou Bamba, dans sa lettre réponse à Seignab Abdurrahman Lo, cette œuvre-là s'articule autour de l'enseignement coranique et de la Aujourd'hui, pour détruire euh, une société, il faut passer par la femme. Lorsque la femme est détruite, la société est détruite. Or, Sokhna Diarra Bousso a su garder les valeurs fondamentales de l'islam et les valeurs fondamentales de la société sénégalaise traditionnelle, disons de la société africaine. C'est la femme africaine ouverte, la femme africaine euh, solidaire, la femme africaine généreuse, la femme africaine engagée, la femme africaine respectant son époux, ce qui lui a permis, effectivement, avec Mamor Anta Sali, qui fut son époux, de mettre au monde quelqu'un qui s'appelle Cheikh Hamadou Bamba et qui est une référence dans l'univers actuel. Je dis simplement que Cheikh Hamadou Bamba, même si on met de côté les considérations religieuses, on met de les considérations religieuses, on doit être d'accord que c'est un intellectuel quand même. Un intellectuel qui a écrit des tonnes et des tonnes de livres. Et ces Aujourd'hui, nous avons un problème d'éducation. Les enfants, tout le monde le sait aujourd'hui, la, référence, le problème éducatif est un problème mondial. Or, Cheikh Hamadou Bamba a écrit des livres pour pousser les jeunes à être à la quête du savoir, pour pousser les jeunes à être à la quête de la vertu. Je voudrais simplement dire que lorsque les mourides parlent de Nigel, un, collègue français m'a dit que le Nigel, qui est important chez les mourides, Je lui dis non, le Nigel n'est pas l'ordre. Parce que seul un dictateur donne des ordres. Le Nigel, c'est l'instruction. Et seul un sage donne des instructions. Donc il est clair que de ce point de vue-là, le Nigel doit être traduit non pas comme ordre, mais comme instruction. Et une instruction, elle repose toujours sur un cadre de valeur. Lorsque quelqu'un veut tromper des gens, lorsque quelqu'un veut tromper des gens, il les éloigne du savoir. Or, Cheikh Amoud Bamba ne nous éloigne pas du le savoir. toute personne qui vous demande de chercher le savoir est une personne qui veut vous mettre sur le droit chemin. Cheikh Ahmadou Bamba nous demande de chercher le savoir et Sokhna Diarra Bousso a été, elle, en ce qui la concerne aussi, une véritable érudite, comme je l'ai dit tantôt, parce qu'elle a travaillé dans le sens d'une maîtrise parfaite de la science religieuse et notamment de la science islamique. Elle a récité le Coran à l'âge de 14 ans, elle a continué à travailler dans la science islamique Elle a eu une érudition autour de la science islamique et son comportement de tous les jours est un comportement qui constitue aujourd'hui un modèle pour les femmes de notre monde actuel. Ce que nous voulons simplement dire, c'est que si aujourd'hui le monde est en crise, heureusement que nous avons un référentiel, heureusement que nous avons un sauvetage, et il nous semble que ce sauvetage-là, en tout cas pour les femmes, c'est Sokhna Diarra qui a été la religion. dama tënk tuuti rek ci li ma wax ci français ci soxna bu Bousso mais tuuti rek ci lu gàtt xam nga euh, ñu bëri dañu ni l'islam moom bu ñu koy wax dafa nekk diine boo xam ni rey rek lay indi tubaab bi ci bëri loolu la ñu xalaat dañ naan terrorisme la rek mais xam nga leen moo tax parce que dafa am ñetti tubaab yoo xam ni il faut ngeen xam leen ku njëkk ki mi ngi tudd Maurice Bucaille Maurice Bucaille médecin la day faj day day faj xol cardiologue la maanaam xol bu feebar lay faj te ña dàq a faj xol ca France ca la bokk ma nga bokk ca académie française de cardiologie donc kooku ku ku ñu jox cër la foofu moom moo ni Maurice Bucaille boobu moo ni seetlu na ni saa yu opéré jullit su opéré xol ba xol ba day dal mais bu opéré keneen ku dul jullit xol ba day yëngu mu ni kon lii am na lu ci ne ci la jël fukki at ak ñett ci at ci ab dundam dem jàngi ji alxuraan bi mu ko jàngee ba pare ci la tuub dem nekk jullit moom Maurice Bucaille boobu ki ci topp moom mooy am Neil Armstrong Neil Armstrong dafa dox ci weer bi maanaam li li tubaab yi di wax dañuy jël fusée sànni ko ci weer bi dañ koo jël mu njëkk a dox ca weer bi bi mu demee ci weer wa dafaa dégg nodd dafa dégg ñuy nodd ca weer bi mu ñibbisee dëkkam déggul ñuy nodd parce que foofu jàkk amu fa mu toog ay at daal di dem Égypte ba mu demee Égypte dégg ñuy nodd mu ni ah nodd bi laa déggoon ca weer ba mu waxee loolu ñu ni ko yow da ngaa dof daal di koy jàpp internet ko tëj ko comme dof ba noonu la faatu maanaam pour wan leen ne ñoom ci seen wàll bopp ñoom ñoo dem ba ne nañu def nang parce que euh, diine l'islam dafa nekk yoon boo xam ne bu ko nit ñi nàmpee boo moytu ñun ci li ñu nekkoon dinañu ñu bàyyi dem toppi ji l'islam ci boppam loolu nag daf ci am kenn ku tudd Philippe Couti Philippe Couti boobu kenn du ko fàtte Couti moom kenn du ko fàtte Philippe Couti boobu français la moom moom moo jàng yenn lenn ci xasida sëñ Touba yi nga xam ne dañ koo traduire en français bi mu ko jàngee ba pare rawatina Masaalikul Jinaan moom Philippe Couti mu ni bu fekkee ni ñun tubaab yi dañoo bëgg a gindiku bu fekkee ni ñun tubaab yi dañoo bëgg a génn ci guuta gi ñu ne bu fekkee ni ñun tubaab yi dañoo bëgg a baax fii ak fële nañu takk suñu ndiggu tegu ci yoonu Touba moom Philippe Couti moom moom moo bind loolu waaw léegi nag kon kon soxlaatul wax parce que bu demee ba ki nga xam ni moom moo la doon jiingat moom ci boppam moom moo ñëw di def témoignage di def ay seede di wax lu rafet ci yow kon wax ji dafay jeex donc loolu laa doon wax ak suñu mbokk ivoiriens yi wan leen ni nag ni soxna Diarra Bousso ci àdduna boo xam ni dafa am crise maanaam àdduna boo xam ni dañu dem ba xam nga boo bëggee yàq société da ngay jaar ci jigéen ñi boo yàqee jigéen ñi rek yàq nga société bi tubaab bi xam nañu loolu boo yàqee jigéen ñi yàq nga société bi donc ñoom tey jii seen jubluwaay seen jubluwaay dafa nekk ni nañu def ba yàq jigéen ñi ma leen di xamal ni moo xam jigéenu Côte waar la wala jigéenu Mauritanie la wala jigéenu Sénégal la bu fekkee ni dañu leen a bëgg a defaraat ba ñu nekk jigéen ñoo xam ni taxawaay ba ñu war a taxaw moom la ñu war a taxaw ci société bi nañu dellu mel ni maam Jaara Buso parce que maam Jaara Buso wane na ko ci xam-xam bi mu amoon ci diine lislaam mais wane na ko tamit ci jikkoom ak ni mu taxawee bis bu ne ci biir këram ak ci biir njabootam loolu laa leen doon xamal maa ngi jéggalu ci kàddu gi nga xam ne moom laa yëkkati asalaamaaleykum taxawal dafa am loo wax ci tubaab ci ordre ak euh, instruction waaw loolu laa bëgg nga firi ko ci olof ba ñu xam ni sëñ tubaab moom li mu yor bokkut ak yeneen waaw dafa dafa am benn tubaab bu ni ma euh, tubaab bi tubaab bi dafa ma ne na murit ñoom dañuy joxe ndigal mu ni ndigal nag mooy ordre maanaam loo xam ne dañ la koo teg te sañoo ko bañ mu ni ma comme comme nag ñoom loolu dañ koo gëm dafa mel ni dañoo gëm koo xam ne ku leen ku leen di noot la parce que da leen di teg loo xam ne dañ koy sañ euh, buñ ko nanguwul yi tamit dañ koy dañ koy d'accord mu ni kon xëy na euh, muridisme nootaange la ñoo xam ne dañ leen di noot la ma ni ko tubaab nga waaye déggoo tubaab bu baax waaw parce que ndigal kenn du ko traduire ordre da koy traduire instruction maanaam ndégtal loo xam ne dañ la koo dégtal te ki la koy dégtal dafa am fu mu tegu moo tax mu dégtal dafa tegu ci lu tegu dafa tegu ci sëñ Touba daf koo wax daf koo bind ci bataaxal bi mu ko bind sëñ Naam Abdourahmane loo maa ngi tënk sama bopp ci li yàlla santaane te maa ngi am comme sëriñ Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ki nga xam ne ci loolu la tënk boppam bu la nee nañu jaar fii jaaral foofu parce que daf laa jaarloo ci yoonu siraatikal mustaqim donc ndigal kenn mënu koo traduire ordre dañ koy traduire instruction fi may terminer rek mooy dafa am benn euh, sëñ Gueye mi ma koy fàttali léegi euh, dafa am benn man nag damay jàngale France damay jàngale benn université bu nekk bu tudd Évry nekk ca France di jàngale fii ci Sénégal donc am naa ay étudiants yoo xam ne ñoom ñëpp ay tubaab lañu te bëri yoo xam xam na ni du maa leen poussé du man maa leen du man maa leen man maa leen soññ ñoom ñoo dem ba ni dañuy def gëstu ci mouridisme bëri na fi ñu jógee France ñëw fii di def gëstu ci mouridisme te yàlla xam na ni man soññu ma leen ci ñoom ñoo ci xam tuuti daal ni dañuy yeggale. alors dafa am benn tubaab boo xam ni moom mosul ñëw senegal bi mu ñëwee fii am colloque bu fi amoon mu ñëw sama biro toog fa mu ni ma damaa bëggoon nga aal ma benn classe ma toog fa man kese parce que damaa bëgg a wéet ma dugal ko ci classe ba waaye classe dafa am photo Sëñ Touba ak moom bi mu duggee toog liggéey li muy liggéey ba pare mu daal di may woo ma ñëw mu ni ma waaw photo yi photo ñan lañu ma ne ko kii mooy sëñ Touba kii mooy Cheikh Ibra mu ni ma ñoom lu ñu doon ma wax ko ci li ma xam bi ma paree mu ni ma mais ñii man dama leen a gént bu yàgg te mosuma leen gis moom tubaab boobu musul ñëw Sénégal musul dégg sax ñuy wax waxi murit musul dégg sax ñuy wax waxi lislaam mu ni ñaar ñii ci photo bi man dama leen a mës dama leen a gént te ba ma leen géntee ay at la ci ginnaaw noonu la mujjee dem Touba moom it tuub daal di nekk waaw kon nag bi ngi noonu euh, je crois que nous avons une référence c'est ça que nous avons voulu dire et cette référence encore une fois c'est jaar Diarra Bousso au-delà de de toute exagération parce que je crois que c'est important que xam nga bu ñuy wax ci mouridisme yenn saa yi dañ naan ñii dañuy daanu dañuy daanu daanu wuñu de man du ma daanu kat li ñu leen di wax ci xel lañ ko teg donc bi may wax ba léegi ay tubaab laay lim pour ñu xam ne mbir mi du ñun quoi tubaab bi ci seen bopp ñoom ñoo ko waxee noonu donc on n'est pas dans l'émotion on Et l'idée, c'est de montrer qu'aujourd'hui, pour sauver le monde de la situation de déconstruction dans laquelle il est, il faut retourner vers des références. Et parmi ces références, nous avons Cheikh Amadou ngir jot sunu ay vidéo di ngeen abonné fii ci seen chaîne YouTube Tawfekh Production ngeen bës cloche bi bokk ci programme bi national international